asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu yéen mbokki gambien yi maa ngi leen a nuyu yéen ak sa sant di leen ziyaare fi fas ene def benn vidéo bu gàtta ci about lu nekk di gis ci dëkk bi fii problème yoo xam ne nii kenn xamut fu problème yi dee jóge ko waaye dem na ñëw na yëpp nañ bileem suñ boppa ñu bileem suñ nit yoo xam ne ni ñun ñooñu lañ tànn pour ñu jiite ñu su ma ne nañ leen ñu bileem suñ nit yoo xam ne ñooñu lañ tànn ñu jiite ñu ñun ñëpp xam nañ ne tey about the security of this country num nekk di demee fu mu nekk nii definitely nekku di dem in a right way su ma ne nekkul di demee in a mooy ñun yàgg naa di leen wax fii suñ sub region bi bandi yu nekk si suñ sub region bi yëpp ak criminal si daw nañ ñu ñëw ñu si biir Gambia fii waaw because bu dëkk njëkk a sori bu njëkk a Gambia nekkutoon heaven for criminals waaye tey Gambia moo nekk heaven for criminals in West Africa. because gis nañ façon yi nit ku nekk daf dee dugg si bi fii di jógee ko si suñ booda fu nekk ñu faa jógee di ñëw fii te proper check bi duñ ko dee def proper check-in duñ ko dee def ñun fu mu nekk nii façon yi dee yu ñaaw yoo xelaat loolu lañ dee gis fii yéen a ngi gis mooda kees bu amoon fii bu Sumbala xale boobu noonu student bu nekkoon Saint Peters fii doon jàng fii manjaago boobu noonu buñ ko fi moodaa xale bu jigéen bi ba saa si yàlla tey jii mënuñoo xam lan moo ko si yan façon anam la kooku dee ba tey xamuñ ko yéen a ngi understand ñu rey ko fi reyin yu ñaaw dog paat lu nekk ñu gis ko fi yéen a ngi understand ñu toogaat ñu gisaat fi façon yi ñaawteef yu nekk bu yàggul ni ñu téye fi ñeena si Dalaba estate bi ñooñu tamit ay nas lañ tey ñu ne deetawaay ñu ne taxi driver boo xam ne dafa miss one week tey ñu gis ko ñu ngi gis bodim bi ñu ngi ko dog ay dogit dogit ñu ngi ko sànni fele si foore bi salaaji foore bi ñu ngi ko jël ñu sànni ko foofu noonu ñu ne téye na ñaari suspect yoo xam ne foreigners lañ so kon dafa mel ni ñun suñ dëkk bi fu mu nekk nii ay criminals yoo xam ne ay foreigners lañ ñoom ñoo dominate suñ dëkk bi waaw ay criminals yoo xam ne ay foreigners lañ ñoo dominate suñ dëkk bi loolu yëpp soo gisee ma ne leen lu suma ma lu may bileem affaire yi sécurité bi sécurité personnel si si seen boppa duma leen bileem ñu lu tax ma ne leen ne ñu ñu jiite si wàlli nguur ñooñu laay bileem ak ñoo xam ne nii ñoom ñoo nekk di xayraace si ñoom ñooñu laay bileem tey ngeen seete ñaata ministres ñoo toog fii ñu ngey dawal ay Pajero ak ay Prado ñu ngi amee ay utilities car understand ngeen ay utility ay utility cars yoo xam ne nii kenn mënut laa wax yéen a ngi understand ñu ngi toog fii di gis fii ay speaker ay deputy speaker ñoom ñëpp ñu ngi amee ay Prado yu bees pul benn parado mu ngi cost ay six to seven million dalasis understand ngeen seven to six million six to seven boobu noonu ñaata moto la mun a amal sécurité bi Gambia fii nga gis a lieutenant wala nga gis fi a captain wala e meejo mu ngi dox si mbedda yi fii di ñaan liif loolu si Gambia fii nga ko gisee understand Gambia fii nga gis e police commissioner boo xam ne ni amul moto boppam Gambia fii nga toog fii nga gis police inspector wala SI mu ngi ñaan liif si mbedda yi fii understand ngeen ñu ngi toog fi dëkk boo xam ne nii ñoo xam ne nii ñooñu noonu ñu ngi liggéey si nguur gi ñu ngi dawal ay parado yo xam ne ñu ngi jar six to seven million dalasis six to seven million dollars ñaata moto la mun a jënda pour suñ security personnel si suñ police bi ñu ngi nii fii da dem si police station nga dem nga yóbbu fa sa case nga report ko fa police yi ñu ne la ne demal nga uti taxi pour ñu dem ñu as ñu war a arrest suspect bi understand ngeen police station su fekkee ne nii tey mënut ta am moto boppam ah da ngaa xool fii tey ay yenn police station yu ndaw yi yu bari soo demee Sokot a police station mënuloo gis foofu noonu moto. soo fi jógee nga dem Manjai police station amuñ moto soo fi jógee nga dem Serekunda police bu police station boobu nekk Hanover amuñ moto nga dem Fajikunda police post amuñ moto understand nga the list goes on and on and on and on so ñooñu noonu naka la ñoo mën a takkulee criminals man si suma gis-gis is a right time and is a high time ñu équipe suñ police yi understand nga ñu am leen heavily ba pare tamit ñu équipe leen ak ay véhicules yoo xam ne nii waxuma leen ne ñu dem ñu jënda ay ñaari moto ñetti moto juróomi moto juróom benni moto juróom ñetti moto ñu jox ko police yi ñu ne nañ dem ñu patrol loolu noonu munta régler situation buñ nekka police yi waroon nañ leen a jox ay twenty pick up yu ees understand ngeen seen police ñu ngi amee tax force seen tax force bi mënul leen a jox fii tey ñu toog tax force suñ ko waxee waxuñ ne Serekunda rek la tax force nekka waxuñ ne Banjul rek la task force war a am waxuñ ne West Coast region rek la task force war a am task force bi dafa war a dem dafa war a dajal Gambia bi yépp ñu jox leen ay twenty five brand new pickups understand ngeen ñu équipe leen ñu am leen heavily ñu empower leen su ko defee police yi dinañ mun a toog di wër si dëkk bi fu nekk guddi ak bëccëg fajar ak ngoon ñu fa wër waaye tey su fekkee team bi romba na Lameen beneen team bi romba tey kaama balaa ñoo jógee ko foofu noonu fekk musiba am na boori Serekunda te lu ngeen fail to understand mooy gis ngeen stade yu ees stade yi ngeen a gis ci dëkk bi ay foreigner ñu ngi dom ñu ngi dugga ci stade yii tey soo seetee stade yu gën a seer fii ak appartement yu gën a seer fii foreigner yi ñoom ñoo ko nekk di luwaas ñoom ñoo nekk foofu lu luñ fay def ak seen yëngu yeeg seen in and out kenn mënu koo xam ci biir dëkk bi fii. understand nga tey dem na fi place yu baree bari tey foreigner yi ñoo ko dominé ci biir dëkk bi naka lañ ko dominété ma jox la exemple tey soo toogee fii ba last féeri understand nga Friday Thursday Saturday dugal fii last féeri wala guddi ay number plate yoo xam ne nii ay forin foreign vehicles rek nga gis ci féeri bi soo jógee fii Sénégambia nga dem fa guddi ay foreign vehicles rek nga gis ci biir dëkk bi fii loolu noonu yëpp ñu ngi ko war lijjanti waaye su fekkee ne ni police yi bugg ñëw liggéey te fekk amuñ lu leen a dimbale pour ñu liggéey naka la ñoo liggéeyee duñ mun a liggéey duñ mun a liggéey wax naa leen ko fi depuis 2017 ma ne leen ne bandi yépp jógee nañ si sub région bi ñu ngi utal si Gambia fu mu nekkat yi parce que léegi te gis ngeen nag dëkka façon yi moo ko dee yaa tey rayot bu amoon Bakaw su si yàlla tuurutoon ndox bu sedda ba gars yi over comme police station bi ñu bon daaw bon ko to asis ñu joge ko foofu noonu ñu dem ñu utali Kairaba police ñu dem foofu noonu ñu lakk Kairaba police ñu bon ko to asis loolu moo dee ici ray national uprising loolu moo ko dee ici national uprising lii moo ko de ici balaa loolu nag di ñëw wax naa leen atte moo gën artu artu moo gën atte kay sori understand artu moo gën atte nañ leen ñu fexe ñu jóg si suñ dëkk bi ñun ñëpp ku nekk nga takk sa ndiga waaye nag ñu ñu jiite yi nañ gore ñu bugg a réew bi te yàlla tax suñ toogee ñu jox la parado buy jar six to seven million dalasis yow xam nga ne sécurité boo xam ne ñoo laay gaat yow pour nga mun a tëdd nga nelew guddi ñu noonu amuñ ay véhicule si ñooy patrouiller nga doylu nga wone ne nañ leen ñu toog ñu équipe suñ sécurité personnel si loolu mooy fulla fayda soo gisee ministre di nelaw ba yandoor police moo tax wala soldaar soo gisee MP mu ngi tëdda di nelaw ba yandoor police ak soldaar ñoo tax soo gisee naka la National Assembly speaker speaker of the assembly mu ngi nelaw ba yandoor police ak soldaar ñoo fa taxaw ñooñu noonu nag toog di leen gaat su fekkee ne nii tey mobility amuñ ko naka lañ leen a gaadee yéen muusu leen su fekkee ne nii sax da muus lu ngeen war a njëkk a def mooy ngeen fexe ngeen toog ngeen yéen ñu nekk si national assembly bi yéen a ngi nii toog fii di dugalal national assembly bi budget boo xam ne kenn xamul ñaata millions of dollars la lan moo tax mënu leen a jël millions of dollars yooyu ngeen pompe ko si sécurité bi waaye sécurité Gambia fii. ñu nekk si hiérarchie bi ñooy enjoy ñoo xam ne nii ñoo nekk si suuf ñoo amee donki joob bi ñoo dee liggéey ñu ñoo toog fii di torox fii soo demee fii tey si army bi saajin leftinal capitaine demal la fii ba si WO2 WO1 understand nga ñooñu noonu yëpp ñu ngi toog fii nii danga leen a gis ñu ngi ñaan liif ci mbedda bi fii mu nekk loo xam ne nii ñu nekk si kaw ñu ngi dawal moto yoo xam ne ñu ngi jar ay 3 million dalasi 4 million dalasi dëkk noonu la war a demee dëkk du doxee noonu yaa ngi gis directeur soo demee fii tey yaa ngi gis minister of justice mu ngi dawal moto boobu noonu nga gis chief of chief justice mu ngi dawal parado boo xam ne kenn mënut laa wax ñaata la jar nga dem fii nga gis speaker bi mu ngi dawal parado boo xam ne millions of dollars deputy speaker mu ngi dawal moto boobu noonu directeur mu ngi dawal boobu noonu MD. managing director MD mu ngi dawal moto bu gën a seer understand ngeen permanent secretary mu ngi dawal moto yooyu noonu moto yooyu noonu yëpp su ngeen gisee yéen a ngi koy dawal yéen ngeen nelew di ewu si jàmm dafa fekk dafa am ñu taxaw seen gannaaw di leen garde dafa am ñu taxaw seen gannaaw di leen garde gannaaw nag am na ñoo xam ne nii ñu ngi taxaw seen gannaaw di leen garde nañ leen leen jox cër nañ leen leen jox cër ñu fexe tamit suñ dëkk bi ñu raxas ko mu set nañ leen ñu raxas dëkk bi mu set ñu ràññale ñu fi dëkk ak ñu fi dëkkul ñu xàmmee criminal yi ak ñu nekkul criminal civilized criminal dafa am te ñun dëkk bi fii civilized criminals ñoo fi gën a bari naka la fi civilized criminals bare ñoom ñoo nekk fii ñu ngi jógee si yeneen dëkk ñun yuñ fi doon mus yuñ musut a dégg yoo xam ne dañ ko doon seetaan si Nigerian film yi yoo xam ne dañ ko daan seetaan si film si. tey yooyu moo nekk di ñëw fii di ñu gane si suñ biir dëkk bi mu nekk loo xam ne nii which is very sad waaw lu sad la parce que tey boy bi famille bi lu ñàkk nañ kenn du compensate famille bi kenn du leen jox dara kenn du leen defal dara loolu yëpp lan moo ko waral léegi fu mu nekk nii sooy jël taxi driver tey baalal leen ma de. sooy jël taxi dangay fàtte pour nga war koo génnee fii ñu bari dañ koy xelaataat because of lan lack of security because of lan dëkk bi óoratul barki de mboo njaay lañ fi gis benn si classe boo xam ne nii dafa dugga Sénégambia foofu noonu ñu ko fa baagi nit ñu daw yàlla def suuf si moo téye seen benn bi foofu noonu yii nii yëpp mu ngi xew si dëkk bi fii lii yëpp lan moo ko war a lan moo war a tax mu stop mooy dañ war a sérieux si suñ affaire sécurité bi nuñ si war a sérieux mooy ñu ñu jiite nañ wàññi buggee yéen ñu ñu jiite wàññi leen buggee réew mi dama leen ko dee wax patriotic citizen dañ ko ñàkk ñun bari wuñ patriotic citizen suñ ko amee benn benn ñoo xam ne nii ñoo nekk ay patriotic citizen moo nekk si réew mi fii tey su fekkee ne ni patriotic citizen nga yow ñu jox la moto buy jar seven million dalasis seven million dalasis wala six million dalasis su fekkee two million dalasis la sax two million dalasis ñaata xale la mun a fayal school two million dalasis ñaata xale la mun a yóbbu ñu toog ñu fayal leen ñu posu seen éducation si université bi ñaata baadoolu ñoo toog fii ñoo xam ne nii suñ xëyee suba ñu ndéewoo duñu leer ñaata nit su fekkee ne nii da nga bugg a sa réew ñu bugg a laa jox façon ngi dundin boobu noonu gestul sa gannaaw nga seet ndax yow ñu nekk sa gannaaw ñu ngi dunda dundin bu correct wala nekkuñ di dunda dundin bu correct taxawal nga seetaat ko waaye déedéet du ngeen ko def réew mi nga gis nit koo xam ne nii ñu jox la moto buy jar six million dalasi nga nekko di ko dawal fekk ñu wóor sa kër bi yëpp kër yu wóor sa kër bi ñooñu noonu ëpp doole gi yëpp suñ dekkee duñ añ suñ añee duñ reer ngay xëcca di dawal di toog si moto buy jar six millions dalasi yaa ngi koo gaare sa bunti kër loolu jaaduwut jullit du doxalee noonu nit ku déggu du doxalee noonu loo xam ne ni ñëpp ko bokka suñ la ko joxee yow kenn pour nga bànneexu ci su fekkee gor nga ah wax dëgg moo neex yàlla war ngaa seetaat sa bopp war ngaa seetaat sa bopp waaye nag lu ma leen ko waxee yéen a ngee dawal moto yuy jar four millions two million three million four five million dalasis six million dalasis ñoo xam ne nii ñoo ñu nekkal si wàlli kaaraange gi ñu ngi nii fii da nga fee gis fii sécurité boo xam ne nii uniforme bu ko rek sax ko am gis nañ fii commander state guard toog na mu ne state guard amuñ uniforme seen uniforme yi dañ manqué seen uniforme yi dañ manqué dégg nañ fi state guard commander mu ne seen gadgets yuñ te use si suñoo téléphone ñoom ñëpp tiim bi amuñ gadgets yooyu léegi ngeen ñëw fii ngeen bugg a jël benn bojet boo xam ne kenn xamut how many millions of dollars la ngeen bugg a koo allocate benn office benn office ngeen bugg a ko koo war ngeen a seetaat security of this country war ngeen a toog ñu seet dëkk bi ñu fi bokk ak ñu fi bokkut bandi yu nekk si biir dëkk bi fii fexe leen nu ñooy génnee bandi yi si dëkk bi dëkk bi dafa bari ay bandi de gis naa fi ay tubaab boo xam ne tamit néegam lañ dugg xaw ma tubaab bi lañ jamat jamate ay dunoo waaye gis naa xaj bu dee foofu loolu yëpp ñu ngi koy gis néeg bi yëpp mu ngi nekk deret lii rek dafa nekk loo xam ne luy delloo tourisme tourisme touriste bi lu koy delloo gannaaw lii tamit bokk na ci. touristes duñ dem si dëkk boo xam ne dëkk bu seefut tubaab du fa dem touristes dañ bugg a suñ demee holiday ñu nekk si dëkk boo xam ne dëkk bu óor la waaye nag dinaa leen wax leen na te ngeen bàyyi si xel gis ngeen décembre bii façon yi tafu ak façon yi ñaawteef gu ne di ngeen ko gis si réew mi parce que boo it léegi ragalatuñ dara danga fay gis ay xale yu ndaw ñu ngee naan doro xale yu ndaw ñu ngee naan piil si ñu ngee yu sàngara léegi da ngaa gis xale yi ñu ngi téye sàngara di ko foyee si mbedda loolu yëpp lan moo ko waral youth si dañ leen dañ useless mentally dañ useless mentally Gambia fii rek ngaa gis ponkal mu em ni man si sikkin baa ngi weex amul étage soo ko ne ana sa étage bi mu segga Gambia fii nga toog fii nga gis ponkal moo xam ne dem na ba sikkinam bi weex amul benn xóob fii nga ko gisee si biir réew mi fii su fekkee ne nii nag paa bu em ni man nga dem ba sa sikkin bi weex su ma ji mënu lay wax ne maa moom étage bi maa moom étage bi fekk yaa ko ñàkk nga liggéey ko naka la yuut si di def naka la yuut si di def ñoo xam ne nii ñoo nekk on government wala ñoo nekk di ñu liggéeyal ñu ngi dawal ay moto yoo xam ne nii ñu ngi jot seven million dollars six million dollars seen doom yi ñu ngi dugg si moto yooyu noonu ñu ngi dem school te yoo xam nga ne démba yow kii moo yow yaa ak papaam sa papa ak papaam ñoo bokkoon benn koñ ñoo bokkoon benn këri luwaas te nga eewu suba nga gis ko every day ñu ngi ko dugal si moto mu ngi dem di jànga ji di ñëw mu ngi jël moto di ko dawal di ñëw xaalis mu ngi fuloor si biir kër gi te yow óor na leen ne lii du góorgóorlu papaam moo ko ko may yow óor na leen ne ñii si mbumbaay guñ nekk nekkul seen góorgóorlu moo leen ko may waaye lan la lu yàq Gambia mooy xar bi foo ko takkee foofu la war a dundee réew du doxee noonu réew du doxee noonu nañ leen ñu gëstuwaat affaire si réew mi nañ leen ñu gëstu affaire si réew mi wax naa leen politiciens yii ñoom ñoo yàq réew mi depuis jamono indépendant ba saa si yàlla tey jii Gambia mënut a fexe ba dem kanam depuis indépendant ak tey waaw su ñëwee kii su ñëwee nga ne kii ne ah kuy ñëw dee dinañ am si moom yaakaar. keneen ku ñëw mu gën a foon gat keneen ki keneen ku ñëw rek mu gën a foon gat keneen ki ndax réew noonu lay doxee Gambian si nañ leen ñu jóg ñu seetaat suñ affaire si réew mi nañ leen ñu xool accountable suñ nit yi ñu ñu jiite nañ gore nu ñu jiite nañ ngeen doyloo loolu dafa baax waaye nag sécurité réew mi nu mu nekk di doxee is very serious de loolu yëpp nag seriousness gi mooy sécurité bi empower wuñ leen soo bëggee empower sécurité tey soo demee fii tey armée bi ñu ngi nii fii boos yuñ fi amewoon woon depuis ajag ba tey boos yooyu mooy transport armée bi yeneen yu bari paan nañ moto yu armée bi soo fa demee joori demal yundum baarak joori trop nga fekk foofu ñu ngi paan foofu munuñ leen a repair demal Fajara barracks how many trucks ñoo fa paan how many pickups su fekkee lii paan na amuñ lu ees naka la sécurité bi di demee kanam police bi moto yuñ bugg a munuñ koo am moto yuñ am bugg a munuñ koo am benn permanent secretary wala benn minister wala benn managing director ñu jox la moto boo xam ne nii ñaari moto ñaari moto yooyu noonu rek soo seetee lu ko jënda mun naa jëndal police yi ñeneenti pick-up ñeneenti pick te police yooyu noonu ñoo amee kaaraange réew mi waaye ñun ñu amee suñ kaaraange gi ñooñu lañ bàyyi ñuy windeelu si biir mbedda bi lépp loo xam ne loolu lañ bugg a munuñ koo am koo xam ni nag loo bugg a munuloo koo am naka nga mun a sikki yoo nit doo ko mun a sikki yoo ñun problème bu ñooy nekk di fees si dëkk bi fu mu nii loolu la politiciens ñoo toog di noos ñoo xam ne nii ñoo xam ne nii ñoom ñoo amee suñu wàlli kaaraange yi ñu ngi fi man maa ko gis leftinan boo xam ne mu ngi gàddu baagam ak méjo ngee dox si mbedd mi ba bu gadee moom ak inspecteur lu ma leen gis ñuy dox si mbedd mi loolu soo ko buggee compter du jeex understand nga dëkk du demee noonu dëkk du demee noonu waaye danga toog nga gis tey benn xale bu ndaw mu jékkee-jékke mu nekk di liggéey si nguur nga gis ko mu ngi ceeñ moto comme ni ñooy ceeñee mbuba waaw because of lan nguur waxoon naa leen ko de waxoon naa leen ko de ma ne leen ne seet leen ministre yu fi jaaroon bu njëkka alali réew mi lii moo tax ñu bari suñ demee ba pension si lali lopitaan la ñuy dëkka lii moo tax ñu bari suñ demee ba pension seen doom yi duñ mun a nas duñ mun a nocci parce que yàlla tamit nag ku feyaa la du ngeen toog di lekk alali réew mi nit ñi toog di torox fii ngeen war leen a utal karaange utalu leen leen kaaraange ngeen bugg a wax ne yàlla dina ànd ak yéen loolu du mun a nekka loolu du mun a nekka da ngeen a nekk ak askan bi yàlla nekkal leen nekkalu leen askan bi ngeen nekk ak seen doom yi yéen a leen a jox posol te poson boobu moo leen a topp ba ilaa yawmi diin du ngeen am aduna du ngeen am alaxira balaa ngaa ñàkk aduna nag nga ñàkk sa alaxira defaral sa aduna parce que loolu noonu yàlla moo ko wax defar leen seen aduna ba mel ni du ngeen fi jógee ko ngeen defar seen eh, aduna ba mel ni suba suba ngeen jógee fi lu tax ñu ne la nga defar sa aduna ba mel ni suba suba nga jógee fi mooy ne liggéeyal ba ëllëg soo fi jógee ko sa alaxira mu jàkk waaye lan damay jooyloo askan wi ba jógee fi sa njoboot si sa gannaaw ñu torox rek bañ fekki la àllaaxira danga liggéeyal askan bi ba jógee fi sa njoboot bi dinañ siggi ba fekki la àllaaxira ñaar yooyu ñoo fi am na te sooraale leen ko te ñaar yooyu du jaas mukk si àdduna bi fii téye leen rek ngeen a jënd ay parado jënda leen ay pajero misi bisi pajero jënda leen ay façon moto yu leen neex kaaraange bu réew mi soxla bu leen ko jox réew mi toog leen nit ku nekk naa leen ko kullukum an ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati nit ku nekk noo jiite yàlla dina la ko laaji suba sa njaboot naka nga leen yare sa kër gi naka nga ko ame borom dëkk bi ak dëkkam imam bi ak jumaayam pasto bi ak coojam understand faada bi ak coojam yépp ëllëg ak si biir dinañ leen laaj naka ngeen ko doon doxalee député bi ak goxam chef bi ak goxam commandant bi ak goxam su ma ne commandant mooy gouverneur understand nga ministre bi ak portfolio buñ la dénka permanent secretary bi fuñ yow tamit sa responsible speaker ak house bi MPC naka ngeen doon doxalee house bi président bi ak réew mi sëriñ daara bi ak taalibeem yi yëpp dinañ leen ko laaji bés penca te bés penca nag duy àllaaxira duy jeex de àllaaxira duy jeex fexe leen ngeen góorgóorlu lu ngeen a def ni yëpp dina leen xon dama leen ko fi dee wax bor bu set ma ne leen seet leen si ministre yu fi romboon lan la fi ñoo xam ne nii seen doom yi def lu ñoo xam ne seen papa yi nekkuñu woon ministre ñu seen papa yi nekkutoon ministre ñoo gën a mun a def loo gis si dëkk bi tey ñoo xam ne seen papa yi ñoo fi nekkoon ministre wax leen ma rek luñ fi liggéey loo xam ne nii ñoo xam ne seen papa yi nekkuñ woon ministre defuñ ko fi du ngeen mun a nekk di lekk deret ëllëg ngeen ne di ngeen mun a sekki du mun a am su ngeen lekkee deret tey ëllëg deta la mooy nekk te deta nag ku feebar wala ku nopp wala ku gaañu besa gaañu bi nopp yaa dee am dëtta su ngeen naanee dereeti tey ëllëg ngeen ami dëtta wala ngeen jox seen doom yi dëtta leen askan wi provider leen askan wi sécurité soo déggee ñu ne nguur man seen tuuma si nguur mu may ma xaalis seen tuuma nguur mu defal ma man lu ma sentu si nguur mooy yoon yu baax kaaraange gu mut kurang ndox su ma ko amee si nguur rek alhamdulillah leneen lu des ma fexe ma nit ma wàkkirlu si yàlla ma dem ma defi ko waaye dangeen ngeen disappoint askan bi every other day wala every time da ngaa dégg mysterious death in this country every time rek mysterious death loolu nga dee dégg si dëkk bi fii lu musta xew si suñ askan bi moo dugg si si suñ askan is Gambia gi dimbale leen askan bi dimbale leen askan bi ngeen taxawu askan wi ngeen utal leen kaaraange président bi mu ngi nii fu mooy dem téeméeri moto ak juróom-ñaar fokkam moo ko dee wër ak soldaari ECOWAS yoo xam ne kenn mënut laa kontal lim bi ministre yi ku nekk vice président bi mu ngi nii mu ngi amee convoy fu moy dem wii ci wàcca gi moo gën a takkar naa si ay mbaam àlla yuy jooy vice président bi lépp lum mu fi waxoon nit ñi si beginning bi génne na ci beset yi ministre yi koo gis fii mu ngi amee sa odli yaa ngi amee ay para yu toog sa bunti kër ñu ngi gaat sa kër bi fu ngeen toog ñan ñoo leen fa teg di average Gambians ñoo leen teg fu ngeen toog kon bu leen foyee di average Gambians da ngeen war a protect seen alal yi ak seen lives yi da ngeen war a protect Gambian yépp every Gambians have the right pour ngeen protect ko waaye suñ toogee ba tey Gambians yi ñu ngi dee si biir dëkk bi fii dee léegi fu mu nekk nii doom adama mu dee si réew mi fii moo gën a yomba picc mu dee si réew mi ngeen xam ne ñu ngi si musiba naaru laay bu mag ngeen xam ne ñu ngi si musiba naaru laay bu mag waaw Gambian fii doomi adama mu dee fi moo gën a yomba picc mu dee fii si réew pour nga dox ba gis picc bu deewee léegi problème la parce que picc yu baax yëpp génn nañ réew mi xam nañ ni réew mi bekkoor moo fi ne waaye Gambien si moom ñu ngi dee rek yéen yéen a ngi enjoy yéen a ngi amee seen ay bodyguard yéen a ngi amee say ay moto yéen a ngi amee seen ay utilities kaa yëpp yéen a ngi enjoy wax naa leen ko de yéen a ngi naan deret tey ëllëg dëtale leen a jurali su ngeen eboo nag you have to be very careful man xawma lan moo tax ñun patriotic citizens in patriotic citizens dañ ko laaj si réew mi maa ngi leen a gërëm di leen santa di leen jox tig daje ba beneen jamono vidéo bi fii laa ko dogee because bugguma koo def mu nekk vidéo bu gudda jërë ngeen jëf